mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu ngi fii ci stade Diom Iba Mar Sam production moo ñu fi woo grand combat bi dox ci diggante Papa Boy Djiné xale bi nga xamante ni ndaanaan la xale la làmb bëgg nañu ko mais muy laala xale bi di Jacob Balde di doomu Zil Balde lamb soxla ko ci lu bare bare combat bi tey combat espoir la waaye sama ASC tey day football bu ASC Eco ma leen ñaanal ndam di leen wax ne ma ne ci tribune ba naan ASC ah, Eco kaay kaay Ibrahima o oh, ASC Eco coow am na coow am na ndeysaan ñu ngi noonu ñaari ka yaa ngi noonu jàkkaarloo fii tey combat mën na fee génn lamb yi warul jeex ndeysaan ñu koy nuyu de ñu fair play Papa Boy Djiné mbër félicitation Eh, eh, nee na Papa Boy Djiné nee na félicitation. waaw merci beaucoup. lan ngay ñaanal ah moom instant bi mu amul lu koy ñaanal xanaa bokk ñu bëgg dañ koy daan rek waaw mu dem defarwaat. ndeysaan ñu ngi noonu. lamb ja ñu ngi nii ndeysaan. diggante bi combat xaj na fi. cey lamb. lamb gi. lamb gi. géejewaay bëggoo fa adversaire. man Pikine rek laa bàyyi fii si lamb. am nga fa adversaire. lamb Pikine lamb Pikine rek laa fi bàyyi. ku ma lamb booleel ma bëree ak moom. booy gisoo ci ma la xanaa lamb Pikine rek laa fi bàyyi ku ma lamb booleel ma bëree ak moom wala déggoo ma la ma la xanaa Pikine kese laa bàyyi si lamb. loolu xam naa ko mais adversaire yi nga war am. potentiel adversaire booy. non samay adversaire bëri nañ si lamb nag mais du ma wax kii wala kële ku ma lamb booleel ma bëree ak moom. loolu daal laa si mën a wax. waa parcelles yi nee nañ da ngaa fort. ñu ne. da ngaa fort waaw ñoom nañ ko gisee noonu rek amul problème yàlla naa yàgg di fort di daan rek. nee nañ Petit Lo ñëwul. ah kon bu ma tasewaat rek moom yàlla Petit Lo boobu ñëwaat ma daanaat ko comme noonu rek. waaw loolu la de. non ah entraînement rek xanaa. waaw entraînement rek. combat bi dañ cee voyagé woon. waaw man samay entraînement laa gën a wóolu de. voyagé woon nga ci combat bi laa wax ci préparation. ah dañuy dem dox suñuy soxla rek comme ñoom niñ koy defee ak yeneen bëri. soo amee combat da ngay entraîné mais tam li nga war a uti tam da nga uti rek. boo a ñu. non avant may jël avance bi laa demoon entraîné yi te boobu soq sax laa àndaloon dem Maroc. ah bi soq di dem nga àndaloon. waaw waaw moom laa àndaloon waaw. dem préparé wu. waaw dama demoon préparé wu ndax dama jugee woon su combat soq am combat ma pare bëre ba pare ànd ak soq dem continuer samay entraînement ñibbisiwaat. mais stratégie bi nga bëreeg euh, Petit Lo mooy da jël avance am ñu bari gisuñu soq nga nekk ci say ruq mais keroog bi nga simmee ko masse musculaire bi ñu gis ci yow daf ñoo jaaxal. waaw ah, xam nga ne ñun ay xale lañ. maanaam dara tëwuñu si làmb quoi ñun ay xale lañ. ay xale lañ dara tëwuñu si làmb. entraînement yi daal moom lañ doon favoriser quoi te ñun suñu papa Silbale si loolu lañ yor entraînement waaw. jaajëf Ama dugg si na. ndeysaan. Zaka ba ngi noonu ànd ak Ama Balde ndaysaan ma ngay léemu ndaysaan zil zil ñëw na <laughs> ndaysaan teggi na leket bi am na lu koy sottil saafara la ndaysaan lamba rafet ndaysaan mu ngi noonu ndaysaan ma ngay bind ndaysaan bind ndox yaa ngay ñëw munul ñàkk ci làmb la bokk ndaysaan ma noonu ma ngay wër gis naa maalaw ndaysaan ñu ngi ànd ak moom ndaysaan mu ngi noonu tibb na suuf si xibla bi ma ngay dem Ibrahima xolal xale bi Zil Baldé baayam Ama Baldé baayam Falaye Baldé maamam ndaysaan doomi mbër jàngil bëre yàgg yàgg dees na la mësa ñam mbër bu ngi ndaysaan gis nga léemu na tibbaat na ci suuf si ndaysaan ma nga noonu ndaysaan ma cey làmb ndaysaan ma nga noonu taxaw tibb na xar fa xufa bi bëri na waaye dañoo nar a bokk ci mekaay ñoom ñaari mbëri sarax mënul ñàkk ci làmb ma nga noonu di wër est-ce que est-ce que xam nga ne añaguma. ah xam nga ne añaguma. am na lu ngay añ yow. damay añ ci balaa rek. Ah, añ kay. ala Ibrahima Ibrahima jëloon. añ kay. damay añ Ibrahima day añ. waaw ati bu la neexee. yéen xam ngeen. ay jàmbar. noonu di saraxe. Caatu Daawda Fall la àndal. tey noo ñëwee. ñëw ak sa ñëw ak waa samay mbokk samay xarit samay adu jàmm waaw loolu ñëwee. combat rek tey mun waa golf dañ maa sas te man gis naa ko noom rek laa mën a fayee. xam naa ko xam naa ko bu xam naa ko bu moom après comprendre. bëri na. lan la ci mën. lu lu mu laaj rek. moo koy indil. lu mu laaj rek tar laa koy indil nag. lu tar laa koy indil. lu tar incha naa xeex naa bëre. naa xeex naa bëre yàlla baax na. ndeysaan mu nga noonu. ah <laughs> mbër mbër mbër mbër mbër. mbër yaay kan. waaye yow booy loo la nga naan yaay kan. ban booy ban booy loo booy loo bu fan. booy yaa ngi nii bool ak waaw. réew moom la dëkk. réew waaw. réew maaw tubaatu mu def de nii la rek waaw. ci xam nga ni man gis naa la. topp naa la. ba fa ngay wuti jee ay ñaan balay topp ngay génn di dugg way génn combat bi fu mu la toll. combat bi fu ma toll xam naa ko ba maa sama yoonu xam nañ ko waaye fu mu toll xam nañ fu muy yëw xam nañ fu kon Pape Diouf moom du mën a téye quoi dañ ñoo libéré ko ci bu gaaw dem suñu waaw. moto bi moom xanaa di nga ko sant gërëm ko. kan ban moto. yoroo moto waaw wax. ay sa gars yi ndeysaan ana sa gars yi. ñu ngi waaj. ndeysaan. ndeysaan gars yaa ngoog de. laa ilaaha illallaah. Eh. waaw waaw loo. waaye xoolal ma booy loo. loo gis na ñii ama seen fay ñii ñëpp laa ñu ma dëkk waaw ñii ñëpp maa ñu ma dëkk xamante ne bu a lii fu jaar ci turam ñëpp xam naa ne waa fu ne ngi fi nag waa Kaolack waa Fatick waa Fatick fu ne fi barke alxuraan ñoo ama fay ñoo tax sa bagante di tay islam ji barke alxuraan ko réew tool njogaan gi day napp booy rek day napp rek ah. ah kan moo dàq bëri Dakar buur. kii nee na Dakar ak dañ laa dàq. mais loolu kañ la loolu kañ la ko waral loolu def buur bañ dàq. moo tax ñu war koo dàq loo def ba buur ba Dakar ak di dàq. damaa amoon gerte. buur loo def laajee ko lu mu def ba ñu dàq ko. buur la buur. waxal à côté. ma ne ko loolu dàq dama doon gérer à côté. ma doon gérer. benn affaire. affaire affaire bi Dakaractu la nekk wala feneen. sa yoon newu ci xam. yow affaire bi góor la am jigéen. waaw yow. Babacar bëggul jàmm. kii da Babacar balaa xol bee sedd. ji li ma tànnaas ji li moo xam Fadel. léegi sax da lay ruux daal dugg ci góor bi ruubee ko. ji li daa yor say rab. Ah, sa ndëpp sa jinne jilee ko yor. ji loo ma xamal. oto bi moom macha allah. déetali awa léeg nee na. bi ma dikkee dama ne ko Babacar sama xarit ka maa may oto ñaanal ma ci. waaw Père Malick mu ngi koy ñaan. Père Malick. maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. maa ngi lay fay di la nuyu di la siyaar. maa ngi am jàmm baax alhamdulilah. ñëw na ba ci yow tàllal loxo yi. na nga defal ko ñaan. yaakaar dafa foor rek. dafa ñëw ni ma taalibe Cheikh la. xam na ni Seydil Hadj Malick lañ ma duppee. mu am yaakaar ci man ngir yàlla ak tarixa bi mu dénk ma ay mu dénk ma ay loxoom ma ñaanal ko pour yàlla may ko ndam ndax ki ñëw ba wóolu la dénk la ay loxoom am yaakaar ci yow waroo tas yaakaaram moo sax ma defal ko Fatiha salaatul Fatiha dëxëñ ci li nga xam ne moom la bëgg ñaan sëñ Babacar si yàlla may ko ndam. Malick am na mbër. non non aw ma mbër waaw. suñu turandoo càndum buy bëree damay gis ni mënoo téye sa bopp. waaw càndum de moom buy bëree dama koy faral lool moom. c'est le seul lutteur bu nga xam ni dina bëre ma am pression. Euh, li ko waral aussi mooy le fait que mu tudde ma boppam mais nekk xale bu yaru bu disponible lu muy dugg daf may daf may woo. laaj ma suma xalaat ma wax ko lu ma bu ma ko nee waaw waaw la bu ma ko nee déedéet la ku mel noonu suy bëree di nga am pression moom moom dama koy ñaanal ndam mais beneen mbër moom sañu ma la ñaanal donc surtout mbër yu mag yi aw ma ci mbër ñoom ñëpp sumay waay lañ que le meilleur gagne. Papa ak waaw combat bu neex lay doon euh, dina am xeex dina am bëre euh, papa dafa soxla ndam. ndax ku ne xam na ne depuis euh, euh, le début dañu amoon ci moom yaakaar bu rëy mais mu am carrière bu nga xam ne dafa nekk en dents de scie maanaam léegi léegi mu baax léegi léegi mu jaar ci côté yi donc dafa soxla ndam pour yaakaar ji. Euh, waa Gunaas ak li ko wër am ci moom yaakaar jooju mën a sotti euh, ki nga xam ne aussi moo di Jacob dafa nekk xale bu nga xam ne ci keppaar gi mu yaroo ku fa yaroo kenn du la kenn du la jàngal bëre ndax bëre bi day nekk ci yow raw rawatina nag nga nekk ci keppaaru Ama Balde euh, Jules Balde euh, yor la ki nga xam ne mooy Papa Balde nekk sa waajur maam Falaay Balde di maamam kon kooku bu bëree bëre war na bëre su bërewul war na bëre donc combat la bu nga xam ne mënul yomb ci kenn si ñoom ñaar papa bu yaboo mu tey ndax bu teyul li koy naqari Jacob da ko koy teg. dóor mu daan ci combat. non bëre la ñuy daanante. jërëjëf waaw. bi mooy sa ñaari combat. bi mooy sama troisième combat. benn victoire deux défaites. tey boo ñëwee nan nga war a def. da nga sa bopp xanaa bëre. waa ji maa xamul foofu ndax mag la. te xale laa. kuma deux. Eh, non li ma ko war a def daa bëri kii ko war a def tey daf mooy loolu billaahi. mais nee na trois combats la def. waaw am deux défaites benn victoire. waaw ah, bu daanoo du ko arrangé man maa ngi ci komba combat man maa ngi sama quatrième victoire oh, la ak benn défaite. deux victoire waaw. leer te damaa ne ci yoon ci kattanu yàlla dama pourfait rek ama war dafa lu ne sama ginnaaw. mu ngi nii. billaahi dafa maa dëgg dañ maa yónni yàkkamti ma waa Matal Thiaré Azur. Baxdaat Sarr dañ maa yàgg a yónni yàggam diw ma kon xam nga erreur waruma daal incha allah di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu rek waaw Bébé Garga bu kaay baax Tëngéej Bébé Garga bu kaay baax Tëngéej waaw i bi nga nekk da ndaanaan yu bari ci làmb fa lañ jonge ñoo jël ñaari saison yi jàll yëpp ñoo jël pay ñu ngi nii barki Serigne Touba laay bërëb solaaru yëmbal paa bële solaaru yëmbal bële. xanaa 1971 la judd. damaa xam kañ la judd kii waay man kii ma xamee ne soo xamoon ne kii la du ma bëreeg moom gaañ. kii mag la. xale bu ndaw la ma koy daan naa mag nga daan xale yi laay wër. na booy ñëw ñu bëre kii la du ma ak moom. bébé gàncax la nag bu kaay baax sa waay. waaw mooy affaire bi nekk fee mu ngi ko dayee ne waaw. dèjà sa waay. kii du combat. paa bee gis nga nuy naa la ma ngay léemu mu toll la wax yëkkati na sengoor ba oh, aw lamb la lépp tegtal la c'est normal sëriñ dafa am doole ci lamb cey lamb waaw waaw. nuyu naa la mbër. maa ngi la ziar bu baax waaw maa ngi am jàmm bu baax. man soldaaru yëmbal. soldaaru yëmbal bi mooy sa ñaata combat. bii moo nekk suñu troisième combat. troisième ba waaw. ki ngay bëreel xam nga waaw non ki may bëreel xaw ma ko de. damay garga bu kaay ma ko dama ko dañ dañ boole nii rek. nee na moom dafa rëccu. li tax mu bëreeg yow parce que bi mu ñëwee ci stade bi gis dafa rus. ndax yow paa nga 1971 waaw dafa am loo xamante ni ñun duñ ci débat ñun dañ ñoo yar waaw di sant suma sëriñ sëñ Ahmada si maa ngi koy sant bu baax waaw mag laa du mag biir géew bi yàggatul incha allah waaw. door daan ko. biir géew ba man noo. kii su ma ko nokkul tey xoolal. bërekat la bu leen saaga ndax. yàggatul. tus doo tus. yàggatul bu leen saaga. làmb gi mais booy xamee naa la. waaw gis nga. man laa la BM Concorde. waaw waaw. ci nga bëre. waaw. yaay ruube. maa doomi duudu yaay kate bi. yaa yaa. maa doomi duudu yaay kate bi. damaa ñàkk boobu. tey nga fas yéene ñëwaat. waaw tey ma ñëw pour wut. Ah, war a bëre si waat nooy def. rek nag ñu def li nu war tey xool bëre bi bu baaxee ñu dem waaw bu baaxut ñu xool lu nu ko fexee baaxale rek bo am ndam waaw. loolu rek ay lam ji fi mu ne nii nañ ñeme rek jam yi taxaw maag Modou Anta sans frontière numéro 2 bu Guédiawaye. waaw. oo du am. dama koy daan daan ko. daan ko daan ko. na ñëw Dakar. loo wax yow. loo wax yow. <laughs> combat yi loo benn booy bu nekk Ngor xaw ma yow. Mbaa du da ngaa jël xeeru Ngor. daa mel ni moom la de. xeeru ngóor mi fi ñëpp bàyyi da koo jël. waaw bàyyi ji li ma. BM déet xeeru ngóor non BM non xeeru ngóor xam naa ko mën na xeex weex na mën na bëre njool la dana yegg ba ci kaw yegg fu sori ku mu bëreel daan. léegi BM na laajal ñu fi jaar fii fii maako ko ñaay fii sama aliyaa la fii laa dëgg fii ku fi ñëw naa la defar ak feneen. ngeen bëre. xaw fu ñuy bëre me fu ñu bëre ci kattanu yàlla dinaa ko duma dinaa ko daan. xeeru ngóor waaw. wala nag maa fàtte boog. xam ma mat. waaw marque allemand bi. borom ay baas ak i siège. kenn mënu leen a waaye ay nit kenn mënu leen a luyee mën ngaa luyee baas ak i siège mais ay nit mënoo leen a luyee. fii sama turbine la. du ma wootee Bawol gi bay ñëw. kenn du des. génération bi ñu bari xamu kii moom ñu bari ci génération bi xamuñu la bi ngay toj làmb fii def nga fi ne Alizé dëgg maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax a baax maa ngi am jàmm bu baax a baax bon maa ngi si benn ruku palmarin rek waaw di gérer samay lépp foofu waaw di pare lépp nag waaw. lan moo lay indi waaw ñëw pour xool arène bi waaw mën a gis sama bopp eh, tamit Issa Pouye na ma dégg bu baax Issa Pouye na ma dégg bu baax Issa Pouye laa wax na ma dégg bu baax Issa Pouye dama bëgg mu wàcc ñu bëre combat la non mais c'est vrai barke yàlla combat la. gaynde caare yi. wóor na rasuri laay combat la. de. Issa na ma dégg bu baax xam na lu baax li may wax xam na Alizé. yow xamoo ma xanaa. Issa Pouye na ma dégg. mais Alizé pour ñu dellu si waat ginnaaw tuuti. bu ñu ma fayee dërëm dërëm sax damay bëre ak moom. léegi pour ñu la xamul. sa palmarès ñaata combat nga def ak yan daanaan nga bëree ci lamb. am na sept combats arène fii bëre naa fi Calaf waaw. Calaf bi oh, euh, Jordan bu Mbour ci la bokkoon. Khadim Sarr. Sentel. Oh, ak 50 euh, Cent 50 Cent waaw. Euh, ak yenn gars ah. moo ko jëloon. Oh, Khadim Sarr ci la bokkoon moo ko jëloon. waaw. Jordan moo ma par erreur mais nag benn benn lañ def door naa ko euh, daan naa ko grand combat moom daan na ma grand combat tamit. ay ah? waaw Zako Balde lañ àndal. Zako Balde waaw waaw waaw. non dañuy daan incha allah dañuy daan. Modou Djiné daa mel ni yeewu na ci lamb. déggoo ma de dañ koy daan. ah oui loolu dafa leer trop na may saa buy dégg waaye na may saa buy Zaka Balde. waaw ñu ngi sant borom bu wér. maalaw nee na ko doxal. ñu ngi sant yàlla bu baax. bis bi lu mu laaj tey bis bi. concentration maximum. ki ngay bëree ñu bëree bëree bëri ci làmb dañu ne saa yu bëree ñu lon ko est-ce que du doon pression ci yow tey. non sant yàlla bu tey saan ma nga noonu ñu koy bàkkal xel mi dem na ci maam ja tey saan combat ba ngay daw Ibrahima de la soirée Médoune yaa ngi noonu di lewaatoo Dangote Less 2 Liss 2 nag laa xamul mooy kan Dangote laa xamul mooy kan komba bi ndeysaan ñu ngi noonu premier combat ba démarré na ndeysaan Liss 2 moo nekk ikiri Mouhamed Ali Dangote nekk kaay baax ikiri kaay nekk ña xeex Liss 2 Dangote Liss 2 Dangote ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngay xeex maa dóor mu daan doom ña ngay xeex laa ilaaha illallaah eh ña ngay dóorante ndeysaan ma ngay xool entraîneur bi entraîneur bi leen ko dal booy bi xool entraîneur bi ci bët ndeysaan dóor mu daanu maa du ndeysaan ñu ngay noonu Liss Dangote Dangote Liss ñu ngay wala déet ardo laa ilaha illallah laa am na ku dem ardo kële moo dem ardo Dangote suñu jamono liste suñu ndeyjoor. liste liste liste amee di ruux na de. liste Dangote liste ruux na. kon de Babacar jërëjëf. Dangote jokkoo ak Assane Thiaw nuyu naa la. Assane Thiaw maa ngi lay ziar. ndeysaan. DTV da ngeen di ko gis. ah ñaari xale yi bëre leen si léegi bëre bu méttee leen. sant da doon jaamee du premier round dañu ko niir. mooy dëgg. mais liis na liirul sànq combat bi ndax ndax Dangote kawo woon na. Liss Dangote aca ndeysaan Liss écrire Mohamed Ali ndeysaan di ñaanal ko yal na suuf oyof ci kawam ndeysaan Liss ñëwatul Liss Dangote Liss ñëwatul simatul sima bi jaaga me saf ndeysaan ci bisu kon Dangote baax na xool ko gis nga foog lis xam ni Dangote benn yax bëru benn yax dafay naqaree bëreel ndeysaan somb na Abdoulaye Diouf Sène soppe na bi maa ngi lay ziar ma sombo nañu lis Dangote Abdoulaye Diouf Sène yaar naa la sopp na bi ndeysaan lan mooy am jàmm rek am solo kenn duñu ko door kii daan rek la ñuy wax liste Dangote liste Dangote liste liste du door liste Dangote liste nuyu naa la danañ génn géew bi liste Dangote mooy xool nag liis na moo ëpp ki nga xam ne ci suuf. Dangote mbaru mbari jom la. Fatma Dia dama la wootee ci bëccëg jëloo ma. Fatma da nga am ko. Abdoulaye Diouf soppi na be. yaa Rasulaay maa ngi lay seen Abdoulaye.

eh caxabal ma. Dangote loolu baaxul. caxabal bi dafa sore. Dangote loolu baaxul mooy Dangote. Dangote Liss. da koy yóotu. waaye moom itam mel na tuuti wala. wala protégeant yi mu sol la. wala jaarale na protégeant bi la. booy génn di am avertissement. ndeysaan Jacob Baldé di noonu jaxamal encore dafa mel ni que. Jacob Baldé di noonu boo xoolee ba tey bàyyiwul. ko Baldé ndeysaan am na tëggkat bu ñëw de xaw ma nag ban mbër lay tëggal dama naa waa Pikine la ci biir la commencé. waaw ah, ci biir la commencé. waaw ah, dafa fekk mu waaye waaye dafa mel ni fekk nañu génn jaar. Ah, mu sifflé. waaw dafa mel ni fekk nañu Dangote mu ngi ngang rek Fatou. ah bi sifflé Dangote. Liss 2 mooy Dangote. Dangote suñu càmmoñ. Liss 2 suñu Dangote. mooy xeex mooy dem ardo waaw benn yax la da baax oh, buur géwél nee na ma benn yax la ay la ay la la oh, yoor bi baaxul yoor bi baaxul cooki yoor bi baaxul wala ah, oh la

waaw ci di doxal Sam Production saa yu tëggee mu neex waa Pikine yi nekk ci diaspora bi bëri mu fa mais waa Géej waay bëri mu ci diaspora bi ndax gis nga seen commentaire hey hey maa ngi door mu daan door ci daa dóor mu daan du caam. commencé cóol non cubukaay bi fi mu nekk moo baaxul. ñëpp loolu moo ñu gënal. ndeysaan arbitre sifflé waat na. Lister suñu ndeyjoor. li ma jaaxal mooy Lister mooy door mooy Marna. Xam nga xam nga buur nee nga sànq mbër mi dafa mar man la yow lay jàppale. laay lay jàppale. jëli bu ma fontoo dama lay delloo say micro ah. ñaari micro ci poos. Eh, takk na takk na takk na Dangote daan na Liss de. Dangote daan na Liss de. waaye lii ban xeetu jël. laa ilaaha illallah. Liss kaay waay ah. kaay waay. mais lii. mais buur làmb kenn xamul lu mu. ah Sakho kii ne ko mu. jago mooy nii jaay bolok yu jaay mënoo indiwul. yow ma indiwul. sëñ bi man bëriwul da ba ñuy bu ñu taaliba maam Saliou Fall warul ragal. yow xool nga ndeysaan yëngu na nee na ko kaay laa ilaha illa laa ilaha illa laa déedéet ndeysaan lamba gi lamba gi nii Ndeysaan mu ngi noonu. taxaw ngi noonu deuxième combat Soldar mooy bërëg booy caaroy oh du mën a ñàkk kan mooy Soldar ak caaroy kan mooy Soldar ndeysaan ndeysaan jërëjëf Seydina maa lay jaajëfal Soldar ak Boy Thiaroy ñu ngi noonu ci combat bi Soldar Boy Thiaroy ndeysaan ñoom ñaari xale yi jàppante nañ mbokk yi waaye ci moment bi ñu jàppante Papa booy Djiné tuus na tuus na tuus bu dëggu tuus na tuus bu garaaw tuus na tuus buy wane ni Papa Boy Djiné mu gi fi ah tuusu Papa Boy Djiné bi wax la papa indi tey ay ja su ko paree daw na jël na daw na jël ko soldar jël na bol caaray soldar booy caaray wër ndombo lu xew deuxième laay laay la laa lan moo xew daan na booy caaray daan na soldar wala déet waaw waaw daan na booy caaray daan na soldar booy caaray daan na yàlla na ko yàlla jàppale tu suturaal ko may ko ndam lu sedd guy ndax mérito na ko lu mu laaj rek mu def ko lu mu laaj rek mu def ko. waaw non non non non soo ko xoolee tey nekkul pression ci moom ndax dal na yàlla na ko yàlla jàppale ko suturaal ko incha allah rabbi ndax mérito na ko daal vraiment liggéey na liggéey na liggéey noo yàlla na ko yàlla jàpp suba daan Sadio suba yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla suturaal. li ma doon nee na da koy door mu ko neex na yàlla suturaal ñu ñoo ngi ñaan yàlla yàlla suturaal ñu may ñu naful sedd guy suba jàmm incha rabbi ndax vraiment. Balla Gaye liggéey na ko te Guédiawaye gépp am nañ ko deen ñëw fees arène nationale préparé suba incha allah yàlla may ndam sët bi ñu dem Guédiawaye feete ko incha allah dugg si Balla Gaye mais Lirou Diane nan la fas yéene dugg si suba yàlla baax na ba suba ak jàmm na yàlla may panaan nu jàmm rek ba suba ak jàmm waaw yàlla na yàlla suba ak ñu ndam sët buy arène nationale ñu fees day mus si Balla Gaye suba ñu xam te ne supporter yëpp dañ jóg génn teel a dem stade dañ ngeen dal. waaw mi ko gisoon daal. waaw boo waxee mu yuuxu. waaw ma jëm la dal la laaj. dal la laaj ay mbir la yàlla na yàlla suturaal daal te après suñu jógee la set fii sa baal la ñëw la 14 yàlla drapeau sëñ Cissé mu sëñ Babacar sama sëñ sama xarit su fa jógee la 15 mai Assane Fall moom lañ Fall sama Assane Fall sama rakk la c'est mon frère global ah, waaw ndeysaan la waaye daal suñu fa jógee la 14 ñu jëm la 15 mai Baye Mandiaye ñëw ñun ñoo moom saison ñooy tëj saison bi Guédiawaye yàlla na ñu yàlla suufal daal sama sol cat at làmmiñ jërëjëf. jërëjëf. papa nuyu naa la. papa nga yëngu bàkk bi. la ilaha illallah. papa booy jëlee. day yëngu. Papa yëngu na. kaay bi. Thiatou Mal Thiatou ak Sombine. ndeysaan Sombine Thiatou Malicounda. Thiatou Malicounda ak Sombine. ndeysaan Sombine moo ngemboo ngemb lu xonq li. moo ngemboo. ngemb lu weex lu am lu vert la ndeysaan ñoom noonu Caatu ak Sombine ñaari xale yaa ngi noonu yaa ngi noonu di lawaatoo Caatu Malicounda ak Sombine waa xale yi jegente leen jàppoo fexe bëre ndaysaan Caatu Malicounda ak Sombine ndaysaan ndaysaan ñu ñoom ñaari xale yi ba tey jàppanteeguñu ndaysaan fu xale yi di mujj Caatu Malikounda ak Sombit ndaysaan ñu ngi ñaari xale yaa ngi noonu diggante Malicounda ak Sombine ñu ngi noonu diggante Malicounda moo la woon ginnaaw ngeen boo am lu xonq ak Sombine ñu ngi noonu lamb waaye combat bi ni mel Caatu ak Sombine avertissement ñoom ñaari xale yi arbitre bi nee na bëre woo leen ndaysaan arbitre bi sifflé waat na Caatu Malicounda ak ñaari xale yaa ngi noonu cokkaas na ndaysaan Caatu Malicounda ak Sombine ñu ngi noonu cokkaasaat na lan moo nar xew ci ñaari xale yi ndaysaan sombin cokkaasaat na dalul ndaysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu door moom Sombine jokkaas na daw na Caatu Mbalikunda ma ngay daawee wet ndaysaan ma ngay dem génn na saaku yi daw da ay ca ñu xool fu ñuy mujj waat Caatu Mbalikunda ak Sombine ñaari xale ay ca ngi noonu fay na Caatu Malicounda dóor sombir ña ngay xeex di perkit mbaa dóor bu daanu du buub na buub na daan na laa ilaaha illallah sombir daan na Caatu Malicounda waay sombir waay waay sombir waay Sombine Caatu Malicounda Sombine daan supporter bi tay nag laay xam ba Anta daan na la ñuy wax wala daan nañ Modou Anta gisuma Anta waaye jabar ji lekkul naanut gisuma waa bellu tali ak ñaari tali ndaysaan Modou Anta ngi noonu mbokk yi arbitre ngi waaj a sifflé ndaysaan dox ci diggante Modou Anta numéro 2 ak Roubé mbokk yi Modou Anta moo la féetee càmmoñ Roubé moo la féetee ndijoor Anta jiital tànk càmmoñ Roubé jiital tànk ca ndijoor ndeysaan loolu mooy garde normal ak fausse garde ñu ngi leewaatoo Roubé Modou Anta numéro 2 Modou Anta jokkaas wala boog mépp Modou Anta ak Roubé Modou Anta ak Roubé ñu ngi lewaatoo ñoom ñaari xale yi mbokk yi ñu ngi fii ci stade Iba Mar Sam production moo ñu fi woo ndeysaan daw na jëli ko ruube jël na ruube jël na moo daan da ruube na ko takk na ko takk na ko yegg nañ suuf moo daan da daan na eh, na ruube ndeysaan daw na moo na ruube da koo takk ndeysaan ruube da koo takk di ko tegal siège moo daan da ko ndeysaan Modou Anta am na ndam jëlal turandoo Anta numéro 2 numéro 1 ndeysaan ku la tuddee doom deewul bëgg na la jikko ndeysaan macha allah Modou Anta ni nga bëreeg ba daan ko la sant yàlla bu baax li nga bëreeg lépp samay course la samay course ne ma yaa ko mën yaa ko ëpp doole te xale nga. ne ma yaa ko yaa ko mën yaa ko ëpp doole te xale ma kaa woon ni xale ñëw ma toog ko. dama xam ne ni yàgg yàgg na ma song gu ma xaar. ma daw dóor ko mu daw song ma ma bàyyi ak tànk bi mu ñëw mu daw gi ma jéem a tegal siège ma ca waxal ko tourné ak moom loolaa bëri moom. bi mooy sa ñaata combat bi mooy sama deuxième combat de victoire. la victoire incha allah. ndeysaan foo wala Thiaw Thiaw billaahi. foofu nga teg sa bët wala ñoom ñooy. yaa ngi moo tax. yaa ngi liggéey. barke sëñ Tuubaa te école de lutte Balla Gaye ay ndaanaan ñoo fa nekk. di ñaanal Balla Gaye di ñaanal Balla waaw kaay kaay. maa ngi lay nuyu baax di la si. fils maa ngi lay fay bu baax. di nuyu di nuyu waa Wasaare ak euh, sa caméraman bi. maa ngi sant yàlla baax. noo gisee combat Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé. waaw combat bi ndeysaan man de combat ndeysaan laa ko tuddee. parce que tey Papa ñëpp a ko yéene ndam bien vrai que ki muy dajeel euh, muy Jacob moom it xale la mais Papa fi mu nekk position bi mu nekk moo tax ñëpp dañ naan san dañ koo yërëm. yërmande jooju nag moo tax ñëpp yéen kon ndam moo tax du ma ci mën a sori bon lamb la daal que le meilleur gagne waaw. boo yemoon tey Papa Boy Djiné nan la war a mën a bëree ci mbër moo xamante ni combat yu bare bare bare da koo ñaan waaw mu tey mu tey rek bañ a bëri ndax xam nga papa saa bu ñëwee combat day indi day indi day indi forme bu baax dina tuus mu neex dina def lépp mais day dem ba ci combat bi mel ni bu duggee ci combat bi day dem ba day riir ci biir combat bi dina dina jekku sax ba téye ba jekku bàyyi ko di wëri leneen loolu na li ko waral mooy dafay dafa dul dafa gaaw a génn ci biir combat te il faut mu bëri avec sérénité bëree xelam bañ a bëree public bañ a bëree ay suma daanoo na bëree teg ko ci sportivité rek lu ko yàlla may mu jël merci. solo. Thank you. mbokk yi arbitre bi ngi waaj a Garga féete la càmmoñ nekk ikiri kaay baax soldaaru yëmbal nekk ikiri Bosco Sow ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Garga féete la ndi càmmoñ ndaysaan soldaaru yëmbal féete leen di joor kii jiital tànk càmmoñ kii jiital tànk càmmoñ ñoom ñaa ñëpp ay garde normal lañ Bébé Garga dox na ci kawam dóor na daje naa kuu bi Bébé Garga daje naa kuu ñoo ngi xeex soldaaru yëmbal ma ngay fay Bébé Garga jëli na ko jàppante nañu ñoom ñaar ndaysaan jàppante nañu soldaar ak caatu yëmbal ndaysaan soldaaru yëmbal bébé garga bébé garga am na lu muy lël ci suuf bébé garga jël na ko da koo a xar soldaaru yëmbal day bañ wala déet yëkkati na ko door na ci suuf laa ilaha illallah ndaysaan daan na garga daan na ko bébé garga daan na ko ndaysaan bébé garga daan na tololoon fu ngeen bataay su ko xam nañu affaire bi ca limik la xam ba ca xam ba ca xam ba ca xam ba ca xeex wala bëri xam ba ca ca limik est-ce dégg bi xam ba ca ca limik ca limik waaw ca limik après lamb ji après lamb ji ngeen ñëw ngeen wax ba doyal ñu tontu leen point téye katu gàllaaj xoolal kii Macha Pereira xool leen ñëpp la ñuy sot tey xaw ma bis bi lan la laaj waaye en tout cas daal booy tey njaxlaf nañ gis naa fi ay bopp yu ne bopp bu ne gis naa ko fi jinne ziar na ma la maa ngi ci jàmm baax papa war a bëri xonet rek xonet Zago Baldé mu ngi bëre ku xonet nee naa leen weñ bu deewee si soow xaruwul bëgg-bëggam la topp Zago bu ko kenn conseillé nga bàyyi papa mais ñax na xam ne du feeñ si taw waxantuma la ak mois de août tey bu waa moom moomee dafa xonet Sokh mu ngi bëre ku xonet yàlla nañu yàlla suturaal ànd ak ñun barke ma ngay ñëw Ibrahima ndeysaan papa boy papa bis bi lu mu laaj xoolal ma Serigne Ba. ndeysaan. ndeysaan. tey père bis moom si amul kuy bëre. te ndeysaan doo gis mu ñëw dooleel la xoolal la muy xool Papa Boy moom Jules Baldé xoolal la mu ràngoo boo ko xoolee xam ne lii ay bagaasam la da koo indi téye ko ba dernier moment mu war a ñëw wane boppam kii mooy Jules Baldé ndeysaan bëri na ndeysaan Papa Boy Djiné dogali na ndeysaan gaay yox la yox la yox la papa a ngi noonu ndeysaan Papa Boy Djiné yëkkati na public bi xalal ma lii ndeysaan Papa ni mu lebal réew mi xaw ma la ndeysaan Papa ngi noonu Papa Boy Djiné ndeysaan woo nañ ko ñi mu àndal koy teeloo kaay. ko dama lay rey. lamb xale Ibrahima Papa Boy Djiné yëngu na mu ngi dalloo ñi mu àndal ndeysaan mu ngi dalloo gaay ndeysaan nee na dal kay baax dañ bokk si lamba ñu gën mënuñoo gën si lamba moo leen génn def naa onze combats am dix victoires daan Kalso daan Lorton daan Pape bu Xees man dama bokk si làmb pour di bàyyi baal a ngi nii mais dañu gars yi jël lan la ñuy dawee. 3 ans ñoo jël ñoo jël premier jël premier. a waaye ñi ma war a jël Ada Fass dafa Coly Faye samay adversaire am na combat Coly Faye sama naataangoo la Coly Faye men sama barki yonent bi deful fi lu mu fa deful onze combat laa def am naa dix victoire tal soo laa mujjee daan man dama bokk si làmb waaye ñi nga xam ne lañ fi def ay trois combat quatre combat man ci onze combat man lan boobu jàll na gars yi dañuy jël ñu trois ans. Iba yow dama la war a woo woo Iba parce que seen combat li ci xew daal dama xamul lan la parce que fekk ma. Iba dama ko door ku bët bi toj mu ñibbi Iba du combat bi. yow xam nga mbër mbër bu bëri lay. jàddoo da faal jàddoo da faal mu ngi dégg mu ngi fii. qualifié la barki boo xamante ne la ak combat gàllankoor douze combat la waaye trois ans maire écurie da ngeen ko wax ngir yàlla trois Sénégal da ngeen ko wax Petit Baye Fall moo fa nekk Abdou Gueye ak booy yi Albu Alburi Alburi ak booy yi tey am na deux sorties deux victoires eh réy na mais suñ ko lañ toog barke Muhammadu Rasulullah eh la Petit Baye Fall dama bëri jël Petit jaajëf ndeysaan combat bi lan la lan ban importance la am ci géejawaay waaw mais yow yow yow nitu lamb nga xam nga combat bi importance bi mu am ci waa géejawaay booba yaakaaru lamb la ne tolof tolof te combat bi dañ koo bëgg c'est normal mu demee nii man dama gis Papa géejawaay yëpp dañoo ànd ak moom uuf ko mais ku ci nekk du wanewul ni sax mbër la préparateur mystique la may gën a dégg nga préparateur mystique la may gën a waaw mais bis bi moo toll noonu rek fonk ko jox ko wàllam jox ko cëram moo tax mu demee nii rek ku nekk da nga ñëw ak rek tey gisoo gisoo gars boo gisee lu gars yi comporté xam ne tey xam nga bis moo moo toll foofu da nga war ci kàttanu yàlla li ñu ko conseillé ñu ko bëri ci kàttanu yàlla xeex wala rek ñu ma aajoo rek ci kàttanu yàlla Alioune Seye macha allah dégg ngeen ko ma nga noonu ci préparation ndeysaan soq dë ma ngay dóor soq ma ngay dóor soq dóor wala déet daw na na ko mu daan wala déet jëli nañ soq laay laay la laa daan nañ ko eh! xumba deux daan na soq deux waaye xumba deux daan na soq deux ndaysaan daan na ko xumba deux daan na soq deux soq daa topp xeex bi xumba paquete ko bërëg moom daan ko ndaysaan ndaysaan xuma daan na soq jël bu bu amul benn benn benn werante kaay. waa Ibou mécanicien yow dama laa gisul waa soo paree nga kaay Petit Baye Fall am na lu ma wax mbër maa lay encouragé. waaw maa bëggee merci. bi nga ba ñàkk noo def. bi nga demee kër gi ah, sant yàlla bu baax rek ndax laa amuloo woon quoi. waaw ah, ma doon bëri yàlla di ma may ma dem ñu daan ma damay sant yàlla bu baax. mais conseil yëpp benn la saa yu bëree dañ naan la dalal mais boo ñëwee ci digg géew munoo dal la. ah dëgg la léegi dinaa dal par force ah léegi moom su ma dugg see géej dinaa dal par force ah dinaa ko mën su ma ko mënul tamit dinaa ko jéem ba mën ko incha ñan ñooy sa adversaire ñu petit loo war a mën a bëri. waaw ah, mais ñii di bëri fii samay adversaire lañ ñii di bëri fii ñaar ñi bëri grand combat bi ah mais ku daan nañ ma ko jox. làmb la rek kenn bu ma si coow làmb. ku ci daanu. waaw ku ci daanu tamit bëgg naa. ku daan ak ku daanu. waaw ku daan ak ku daanu yow pare naa pour bëre ak ñoom. jaajëf jaajëf. maa lay encouragé. Ah, kay. gars yi lu ñu wax. waaw léegi rek incha allah. léegi rek incha allah. am nga combat. amaguma mais léegi rek. Alioune Seye Junior dañoo ñu bëri Alioune Seye na ñu bëre

tuddee ko ko jaadu na làmb gi ndeysaan Ndeysaan combat bi dox ci diggante Valdo Cambérène al Ndeysaan ak Ali ñu ngi noonu di lewaatoo Valdo moo la ndi joor waaw Valdo ki ngay bëre la ngi ne Valdo alligator a ngi ne Valdo Valdo ah yaa ngi koy gis per ndeysaan may may ay ca ñu ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ngi lewaatoo ñu ngi leewaatoo Valdo daw na jëli ko Cheikh may ma combat bi jàll dimbali ma ngir yàlla may ko mu ngi door mu ngi door mu ngi door ñu ngi door Valdo ñu ngi door ñu ngi door ngi door ndeysaan Valdo jàpp na laa ilaaha illallah daan na ko Ali Gardo daan na Valdo laa ilaaha illallah Ikiriba ci seeraas daan na am na ndam ndeysaan am na ndam daan na ndaysaan daan na tarba maa ngi lay nuyu di la féliciter saam tudd tey bis dara jaale la ko ban yëg-yëg nga ci am en tant que artiste waaw gars yi maa ngi leen di bëggee di nuyu internet yi ñu toog ni ñu seetaan eh, bis bi ñoo tuddee nag dama ci am satisfaction vraiment di ci kontaan bu baax parce que man amateuru lamb laa buñ ma tuddee lamb du ma def lu dul kontaan ci vraiment kontaan ci waa grande Dakar ñaari tali ñi ñëw ñëpp ndax sama jëmm ji aw ma seen fay vraiment kontaan naa ci ñëpp. ñu say xarit say doomu ndey say njagañaale ñëpp ànd ak yow ban yëg nga ci am. waa dara boobu dañ ma ko tuddee ma jël ko delloo ko waa grande Dakar ñaari tali parce que man lépp luñ ma ko defal lépp luñ ma defal grande Dakar ñaari tali lañ ko defal ma ànd ak sumay xarit samay mbok samay soppe am di jàmm yi ñëpp ñëw. Hmm. maa ngi leen di bëggee bu baax a baax. Ah. ndaysaan dox ci diggante Kayta Kara ndaysaan Kayta Kara Kayta Kara ak Fils Sam Sam arbitre bi sifflé Kayta Kara moo la ginnaaw ngembo ngemb lu bula li Sam Sam moo la lool ngembo ngemb lu xonq li ndaysaan Kayta Kara fils de Samsam ndaysaan ñu ngi lewaatoo ñoom ñaari xale yi Kayta Kara sànni na Kayta Kara sànni na Kayta Kara sànni na dooraat na moom Kayta Kara fils de Samsam mu ngi koy déglu dooraat na moom Kayta Kara xeex ba déclenché na da ngay xeex Kayta Kara fils de Samsam Kayta Kara dooraat na ndaysaan daw nañ jàppante Sam Sam Karakira daw na jëli ko ci geño waaye amul ngem tegal na ko siège bañ na daan na ko daan Sam Sam daan na Karakira Siteu Sam Sam daan na Karakira da koo tak ndeysaan da koo tak yàlla ko ba ci kaw wala

waaye lii nga doon na ko nag yàlla sa jàmm yàgg ci dara ngay yonent bi moom moo nekk lii la ko tuwa ba doon sa tas bi laaji mu jaare sunu bàyyi laaji mu jaay joxe bàyyi sa réew di gën fan yàlla loolu dara jërëjëf alhamdulilah arbitre bi ngi waaj a sifflé Ibrahima combat bi dox ci diggante Pape Diouf ak Boy Lo <laughs> combat social baa ngi noonu Pape Diouf moo la féete ndijoor Boy Lo moo la féete càmmoñ ñoom ñaari xale yi ñu ngi lewaatoo mbokki yi Pape Diouf moo féetee ndi joor moo ngembo ngemb lu xonq li Boy moo la féetee càmmoñ ndaysaan ngembo ngemb Lagos bi ñu ngi lewaatoo Pape Diouf cokkaas na Pape Diouf cokkaas na léegi Pape Diouf Boy Lo Boy Lo Pape Diouf Pape ndeysaan arbitre bi sifflé na arbitre bi sifflé waat na woo na leen ci diggi géew bi kaay leen lépp fii lay xewee arbitre bi sifflé waat na Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf Boy Lo ndeysaan Pape Diouf Boy Lo ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Pape Diouf jokkaas na Boy Lo fayu na jege nañ saaku yi ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo jege nañ saaku yi Boy Lo tuuse Pape Diouf tuuse na ku boobu baax na ah Pape Diouf Boy Pape Diouf daw na cokaas ko ñu ngay xeex laa ilaaha illallaah galaaj yaa ngay dagg Pape Diouf Boy Lo Boy Lo Pape Diouf combat bi mënul yomb ndaysaan Pape Diouf na xeex bi baax na te en plus am na lecture ci combat bi ñu xool ñoom ñaar fu ñuy mujj Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf cokkaasaat na génn nañ saaku yi Boy Lo ngay fayu génn nañ saaku yi kaay leen ci géew bi la lépp di xewe ndaysaan Pape Diouf Boy Lo avertissement pour Pape Diouf arbitre bi sifflé waat na mbokk yi ñu ngi noonu waaye loo mën a xam mooy stade bi dafa lëndëm crise stade bi li muy rëy rëy rëy six la mooy tàkk ñaari projecteurs yu tà jàkkaarloo benn tàkku ci fii la ci stade Jom Mar tey ñu ngi noonu ak Boylo Pape Diouf cokaas na yóndu na Boylo fayu na Pape Diouf Boylo ñu ngi dox ci koom Pape Diouf daw na jëli Boy Lo ngay dóor ndeysaan Boy Lo Pape Diouf dóor bu daanu wala daw jëli na ko arbitre bi àtte na bi àtte na laa ilaaha illallah eh tey Pape Diouf ak Boy Lo Boy Lo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi wàcc combat bi mbokk yi Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf féete di joor Boy Lo féete ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo ndeysaan Boy Lo Pape Boy Lo Pape dinañ xeexaat ñoom ñaar ñoom ñaar ku ci moytuwul sa bopp mu nar nga daanu. Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf na Pape ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar. Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf Pape Diouf Boy Lo ndeysaan ñoom ñaar a noonu Pape Diouf Boy Lo ndeysaan Pape Diouf Boy Lo Pape daw nañ jàppante ba tey dara xewagul ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo waaye Boy Lo da ko séen jàppante na ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo lan moo nar a xew Pape Diouf Boy Lo ndeysaan ñoom ñaar jàppante na ñoom ñaar Pape Diouf loxo càmmoñ bi jàpp na Boy Lo loxo ndijoor bi jàpp na ñoom ñaar lan mooy xew Pape Diouf Boy Lo laay laay la awaay ah, finaalu ay see éco bi fu mu toll nday sant entente cosaan ak océan final bi fan la toll Ndeysaan ñaari xale yaa ngi jàppante ba tey Pape Diouf Ndeysaan arbitre bi àtte na ku dem Ardo Pape juuf dem na Ardo Pape Diouf dem na Ardo arbitre bi sifle waat na ba Pape Diouf demee ci arto bi ba ñëw la arbitre bi sifflé waat ñoom ñaar Pape Diouf ndaysaan ak Boy Lo lan moo nar a xew ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo ndaysaan ñu ngi noonu combat yaa ngi noonu ndeysaan Boy Lo ak ak Pape Diouf Pape Diouf cokkaasaat na delloo ko ndeysaan Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo ñu ngi ni mu ngi lewaatoo mu ngi dox ci kawam ndaysaan cokaasaat na Baye Balla Mbuub mooy wax noonu ci aas Bécaye Mbaye ndaysaan ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Ndeysaan cokkaas aat ñu ngi cokkaas mu ngi ñëw cokkaas aat na ndeysaan Pape Diouf li muy cokkaas mu ngi dem Pape Diouf ak Boy Lo combat bi mu ngi noonu ñu ngi lewaatoo ba ñu ngi leewaatoo ba tey Pape Diouf Boy Lo cokkaasaat na ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar ndeysaan ñu ngi noonu di lewaatoo ba tey combat bee ngi bëgg a yàgg nag xale yi bëre leen Pape Diouf mu ngi dox ci koob ñoom ñaar fan lay mujj Boy Lo Pape Diouf Pape Diouf Pape Diouf Boy Lo Boy Lo ko jëli na ko jëli na ko jëli na mu jëm ak moom arbitre bi sifle na yaa ngi yaa ngi ci saa bi oh arbitre xaaral combat waa yaa ngi bi sifle arbitre bi ñu ngi noonu ci combat bi ñu ngi ci combat bi mu ngi ci combat bi ñu ngi ci combat bi ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñu ngi xeex may may ñu ngi xeex ndeysaan ñu ngi xeex ndeysaan ñu ngi xeex cey ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngi jàppante ñoom ñaar Pape Diouf Boy Lo Pape Diouf Boy Lo xam nga mbokk yi li ngeen di dégg sànq kii Pape Diouf magam bu mbokkal ndey ak baay xaw ma rakkam site internet la yor nekk caméraman di filmer muy Bécaye jaadu rakkam di bëre tollu ci yenn situation deret fort deret sot mu jug dem ci magam wax moom dellu siwaat ci bërëbu liggéey kaayam nañ ko ko may mais ñoo di woo agent yi naan ko jugal na jug na dem la ko yëkkati xamu ko deret la loolu deret la ah deret dafa arbitre bi ay waaj a sifflé combat bi doxaat ci diggante Pape Diouf ndeysaan Pape Diouf ak Boy Lo Pape Diouf première temps bi jeex na ñu ngi ci deuxième mi-temps bi ndeysaan arbitre bi sifflé Pape Diouf moo la féetee ndi joor Boy Lo moo la féetee ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Pape Diouf cokkaasan na Boy ngay wuy si Boy Lo Pape Diouf combat bi bi dina gaaw Pape Diouf door na ñu ngi xeex Pape Diouf Boy Lo Boy Lo dox na ci koom Boy Lo dox na ci kawam bu ñu xeexee rek Boy Lo doy gëtëg dox ci kaw Pape Diouf Pape Diouf dóor ko góos dóoraat na góos Pape Diouf daa bëgg Boy Lo répondre Pape Diouf Boy Lo fu ñuy mujj Boy Lo Pape Diouf ñu ngi lewaatoo Boylo daw na Pape Diouf jëli na jàppante ne bëgg na ko plaqué mu bañ moom Boylo Pape Diouf a déglu Pape Diouf dugal na loxo bi faqan na ko daan na ko Boylo daan na Pape Diouf Boylo daan na Pape Diouf jël bu amul benn werante Boylo daan na ko ndaysaan da ko busulu muy dem mu accompagner ko paqueté tànk bi daan ko jël bu amul benn werante ndaysaan daan na ko ndaysaan Pape Diouf daan ko jël bu la bett waay ndaysaan ñuy waaj a ñëw ci dañ dëpp gi dox ci diggante Papa Boy Djiné

Sampai jumpa lagi. Ndaysaan mu ngi xool Jacob Baldé xool na ko ba pare xool na Ndaysaan may ma may minute de silence mbokk yi arbitre baa ngi noonu di wax ak ñaari mbëri ñu ngi leen di wax beneen arbitre bi ñëw na xool yaram bi niinul mbokk yi combat bi ñëpp doon xaar combat bi ñëpp doon yaakaar combat bi ñëpp doon yaakaar ni xale bii di Papa Boy Djiné war na koo mën a Jacob Baldé combat ba taxaw na mbokk yi looy bañ ñu xew wala mu am bul ko jàppal bés wuro wa dem këng waxu mag dem dañ taali tàgg war mbaam lu waay doon jaay diggante Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé léegi mu lamb mbokk yi arbitre laaj na ay siisam laaj na Papa laaj na Jacob arbitre bi sifflé na mbokk yi il est samedi 16 août 2022 stade Diop Production moo ñu fi woo grand combat bi dox ci diggante Papa Boy Djiné ak Jacob Balde ndaysaan drapeau Tarba Mbaye Papa Boy Djiné def na sortie de libéré jéggi na génn saako yi jéggi na saako yi moom papa arbitre bi na samp na tànk yi papa booy jinne Jacob léemu na tàllal na ko loxo ñu ngi lewaatoo Papa Boy jiital jiital tànk càmmoñ Jacob Baldé jiital tànk càmmoñ Jacob dox na ci kawam deme nañ wet ñu ngi demee latéral ñoom ñaar Jacob a ngi dox ci kaw Papa fu muy mujj Pikine Guédiawaye Papa cokkaas na Jacob gis na coup bi Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñoom ñaar lu ci waay di def na wóor ndax ku ci song sa morom lamb mën naa jeex Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa tàllal na ko loxo fel na loxo boobu Papa Boy Djiné Jacob Baldé ndaysaan Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñu ngi lewaatoo ba tey dara xewagul kurpañ amagul songo amagul Papa Boy Djiné Jacob Baldé ñu ngi noonu Papa dagg na léewtoo bi mu ngi demee wet Jacob karkaral na ko yegsi nañ jege nañ saaku yi ñoom ñaar Papa Boy Djiné sa Papa wàccee na garde bi est-ce loolu wóor Jacob mu ngi concentré wu rek aj garde bi dox ci kaw Papa Boy Djiné ndeysaan Jacob daa bëgg a diriger combat bi ci koom arbitre bi nee na laale leen Papa daw na jëli ko baaxul ndeysaan ñoom ñaar dara xewagul Jacob gis na ko attention percute attention xeex ndaysaan bu ñu xeexee nga gis combat bu neex Papa a ngi koy xool Jacob Baldé Papa Boy Djiné ñu ngi noonu Jacob Papa Jacob Baldé Zil Baldé moo ko indi Papa Boy Djiné ko suroon xeex nañ Papa Jacob Ndeysaan kurpañ dem na léegi est taxaw ci benn place di xeex wóor na daw na Papa Jacob dóoraat na Papa dóor na jàppante nañu Papa Boy Djiné Jacob Baldé Jacob a ngi dóor ci suuf Jacob ngi dóor jege nañ saako yi Jacob ngi door Papa Boy Djiné Jacob jàppante nañu ñoom ñaar xale yi fu combat bi di mujj Papa Boy Djiné Jacob Baldé <laughs> ay waay lamba gi waay ndaysaan Papa booy Djiné loxo ndijoor bi jàppul ci sengoor yi rek la jàpp loxo bi moom jàppul bu baax ci sengoor yi rek la ñoom ñaar lan moo nar a xew Papa Boy Djiné Zakab Balde Papa ndengeñ na ko ndaysaan ndengeñ na ko Zakab bi Baboy Djiné mu ngi jéem a fàqat Jacob Jacob bañ na mu ngi koy fàqat Jacob bañ na ndeysaan ñoom ñaar lan moo nar a xew Jacob Baldé Papa Boy Djiné mbokk yi jàppante na ñoom ñaar drapeau Tarba Mbaye la ñuy bëre ndeysaan doomu Grand Dakar bi daw na jàppaat ko xalaat naa ñu bal fi mbër sànni ko wala ñu plaqué fi mbër en tout cas lu mën a xew combat baa ngi noonu ñu ngi ñooñu jege nañu saaku yi Jacob Baldé Papa Boy ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu Papa jege na saaku yi bañ na génnaat saaku yi moom Papa Boy Djiné dugaat na ci diggi géew bi ma ngay ci suuf ñoom ñaar ragal naa bu ñu tàqalikoo ba ñëwaat ku ci nekk dina jeexal combat bi actuellement c'est normal ñoom ñaar ku ci nekk di calculer waaye ba tay dara xew papa fayu na doon na benn percute ci suuf boo ji jinne door na percute ci suuf ndaysaan ñoom ñaar a ngi ci combat bi ba tey ku gën a teey mën nga daan sa morom Papa doon na tànta jaxabal waaye jaxabal wi wóorul ndax fi mu jàpp baaxut Zaka ba ngi dóor Zaka ba ngi dóor da ngay tànte Zaka Papa Boy Djiné Zaka ba dóor Zaka ba ngi dóor ndeysaan Zaka Balde Papa Boy Djiné Ndeysaan Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé ma ngay dóor Jacob a ngi dóor Ndeysaan Jacob Baldé Papa Boy Djiné ña ngay xe Ndeysaan ña ngay jàppante waaye sànq ba léegi Jacob a ngi dóor na Jacob dóoraat na Jacob dóoraat na Jacob dóoraat na dóoraat na moom Jacob mais Papa jàpp na mbot na laay laay la Papa Boy Djiné war na ko ndomba génn nañ arbitre bi woo na lii lay jariñ kee dem na ci Jules Baldé kee dem na ci Coach Ron ñoom ñaar ku ci nekk sa entraîneur dafa bëgg a jeexal combat bi ndeysaan ñu ngi noonu arbi bi siflé waat na Papa Boy Djiné Jacob Baldé ginnaaw bi ñu bëree action am ñu génn i dellu si waat nañ ci digg géew bi mbokk yi Papa Boy Djiné moo la féete càmmoñ Jacob Balde moo la féete ndijoor ngemboo ngemb Falaye Balde ngemboo ngemb Fodé Doussouba ngemboo ngemb Ama Balde ngemboo ngemb Zil Balde moom Jacob Balde ngemb yëpp ñi ma tudd nii ku ci ñëw moom ngay ngemb waal ndaysaan ñii nañ mooy ngemb Fulado ñu ngi lewaatoo ndaysaan da bëgg a dóor téye ci loxo bi téye ci loxo bi téye ci loxo bi ndaysaan Papa Boy Djiné Jacob combat bi ñaari mbër yaa ngi ci Ndeysaan cokkaas na Ndeysaan Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé ñu ngi noonu Ndeysaan Ndeysaan ñu noonu ñu ngi leewaatoo combat bi bëri na calcul Papa cokkaas na Ndeysaan Ndeysaan Jacob sànni na coup Papa fayu na ña ngay xeex ñoom ñaar Jacob Baldé Papa Ndeysaan kaaw mbaa du am Papa fayu na Papa fayu na Jacob pakata na Papa Boy Djiné pakata na ko pakata na ko arbitre bi àtte na arbitre bi atte na arbitre bi atte na ndeysaan combat bi metti na ñoom ñaar ku ci ëpp condition physique yaay jeexal làmb ji ci ëpp mun ngaa daan sa adversaire ci combat bi Papa Boy na yu génn ba ginnaaw saako yi arbitre bi sifflé Jacob daan ko ci ginnaaw saakuy dellu siwaat nañu Jacob Baldé Papa Boy Djiné ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Papa dagg na lewtoo mu ngi reculer Papa Boy Djiné ak Jacob Baldé Papa Boy Djiné Jacob ñoom ñaar am na ku ci bëgg a sàcc sa tànk morom ndeysaan am na ñoom ñaar ku ci bëgg a sàcc sa morom ndeysaan ñoom ñaar combat bu nar a met na Jacob remise ko ndeysaan Zaka ba ngi wax ak moom lan lay wax Papa Boy Djiné ndeysaan Jacob Papa Jacob Baldé Papa Boy Djiné ndeysaan Jacob Baldé Papa Papa Boy ndeysaan paa ngi dóor ndeysaan ña ngay xeex laa pataake ya jege nañ laa ilaaha illallaah moytu leen mu daanu mun naa am ndeysaan dóor mu daanu mun naa mu daanu mun naa am mu daanu mun daa boo jine dóor na ko laa ilaaha illallaah bàyyi leen bàyyi leen ko arbitre bi sifla la na Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné mu ngi dóor ay crochet droit yoo xamante ne bu dalee Jacob wóorul waaye combat bu neex la ñoom ñaari mbër yi ñu ngi xeex ku ci nekk ngi joxe sa morom daw na jàppante nañ ndaysaan dóor na koy percute mbaa dóor mu daanu du am ci combat bi gala jaa ngay dagg Jacob Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné Jacob dóor na ko ci biir ndaysaan salax bu ko tee koy dóor foofu félestige taa bi jeex na Ndaysaan Dramé Jacob a ngi noonu ndeysaan ci médecin yi cest loxo bi gaañu gaañu bi taxu koo métti waaye ndeysaan combat bi fan lay mujj dinañ continuer wala déet en tout cas lu mën a xew mooy Jacob gaañu na ci loxo mu ngi ci ardo bi ndeysaan combat dina mujjee yegg combat bi lan moo ci xew bande bi day continuer wala déet ndaysaan diggante Jacob Baldé ak Papa Boy Djiné Jacob demee ci ardo bi ba ñëw Papa Boy Djiné dindi na bande Jacob daa bëgg a jeexal combat bi ndax bi ci loxo bi li muy génnee ci deret dafa bari ndax tàngooru yaram bi na garde bi moom Jacob aj na ko ndeysaan ndeysaan Papa bi lu muy wax Papa Boy Djiné mu ngay léew ma ngay déplacé wu nangul taxaw benn place mon papa arbitre bi atte na bi atte na deret bi combat bi mooy li ma wóor boo wóor mooy Jacob Balde blessure am bi ci loxo bi su demaatee ci ardo bi ragal naa combat am yàqu ragal naa combat ba dina mujjee yàqu arbitre bi siflé waat na Jacob Baldé Papa Boy Djiné Jacob Baldé Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné Jacob Jacob ngi dox ci koom Papa Boy Djiné Jacob ngi dox ci koom daa bëgg a jeexal combat Papa Boy Djiné Jacob Jacob daw na jàpp ko tëru na Papa ngi wut fu mu jàpp amagul fu mu jàpp Jacob Baldé Papa Boy Djiné bañ na mbot na ko daan wala déet Papa bañ na Jacob wañaar na ko forcé na ko da koy won daan da daan Jacob da daan wala déet ma koy dóor ma ngay dóor Jacob ma ngay dóor ma ngay dóor ma ma ngay ma waa lii la la oh ay waa ji yàq na lamb ji situation bi xew ci làmb ji dox ci diggante Papa booy jinne ak Jacob mbokki dañoo bëre ñoom ñaar wuree ci biir bëre ba Papa Boy Djiné Jacob Baldé wër ko ndombo di ko dóor kii di euh, benn ku ànd ak Papa Boy Djiné lañ ko mën a wax daw dugg ci géew bi moo indi problème bu bari mais presse bi ñu ci bëree bare bari ñàkk nañ li nga xamante ne mooy seen i appareil ñu ci bëree bëri seen téléphone lañ doon liggéey ñàkk nañ seen téléphone ndax gis nañ ay nit yoo xamante ne dañoo topp ki àndoon na booy Boy di ko dóor di ko dóor vraiment mbokk yi gis ngeen situation boobu moo xew mais ñoom ñaari mbër yëpp ñu ngi ci géew bi Papa booy Djiné génnul stade bi ba léegi mu ngi ci géew bi Jacob Baldé mu ngi ci géew bi dañuy xool ñoom ñaar ban décision la arbitre yi di jël ci kaw Papa booy Djiné wala Jacob Baldé ñu ngi noonu ñu ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu lan moo nar a xew. ayca Ibrahima. la règlement wax ndax war nañ ko taf. c'est-à-dire que lambu xale yi. taf nañ ko lambu xale yi. xam nga man lan laa d'accord ñii ay xale lañ toll ci seen buntu àdduna. li ci am moo ci warul am tey bu fi accident amoon wala mortel am daka jarul yéen ñëpp a ngi daw ku ci nekk bëgg a gaañu il faut ñu xoolaat lamb ji ni ñu koy organiser ñii ay xale lañ amaguñ dara ci lamb kon warul àgg fi ba lamb ji àgg fi tension bi ñun ñëpp ñu ne ay problème blessure yàgg na ci lamb nit mënta bëre gaañu ñëpp suñu njaboot lañu mais man dara métti wax naa ko médecin bi avant muy am scandale dina am ci lamb ji li ma gis kon na leen libéré ñu dem loolu euh, kenn daanuwul ñaari xale yi li ñu bëri fii dañoo démérité jarul coow jërëjëf xeer mbokk yi gis ngeen xeer yaa ngay jolli ña ngay xeex fi mu toll nii nag stade bi génn fi sax day doon problème waay day doon problème gis nga grenade yaa ngay dem taxaw leen fii la taxaw leen fii taxaw leen fii